kaddu Kocc nga indeeti mag moo xamante ni kaddoom amati na njariñ. waaw muy euh, Cheikh Omar Foutiyou Tall radiyallahu anhu ñu indi ay kaddoom ci euh, kanam ñu daal di dem rek régie daal di ko seetaan ñëwaat ndax kaddu la yoo xam te ni euh, actualité la. Mm-hmm. waaye à chaque fois war nañ ko di ko gën a suuxat jëm ci li nga xam te ni moom mooy l'islam ndax toll nañu ci jamono joo xamante ni nee bu nit faatoo. ni ko nit ñi di jooyee bokkul ak bu ñu faatee benn baat boo xamante ni baatu diine la wala ñu yàq benn kàddu boo xamante ni kàddu yi lislaam la mu mel ni métit bi du doon benn te toll nañ ci jamono jooju yoo xamante ni yàqute yi bari na kon dañuy dem rek seetaan élément bi ñëwaat ni euh, moom lañu doon laaj ci léegi euh, Jacques du ñàkk dinañ ci dinañ ci ñëwaat ci suñu euh, mu ngi wax ci li ma wax léegi rek mooy li nga xam ni moom mooy kàddu yu yàqu baatu lii di yàq baatu lislaam waaye yàq li nga xam ne mooy deru lislaam tool nañ ci jamono joo xamante ni lii di wàllum lislaam dañu ko indi ba pare mais ni ñu ko war wegee weguñu ko baat la boo xamante ni moom Cheikh Omar Foutiyou Tall ba mu koy wax jëm na ci nit bu deewee ni ñu koy jooyee bokkul ak bu ñu yàqee lii di baatu lislaam li ñu koy naqarloo ndax gis nañu ne euh, à chaque fois euh, ci àddina bi muy kilifa wala ku mënti doon faat nañu ko fa dee na wala faat nañu ko nit ñi dañuy taxaw di def ay dénonciation yu bari li ci mujj rek moom mooy suñu concert bi nga xam ni faat nañu ko euh, ci euh, dëkk bu ñu naan Palestine gis na ab taskatu xabaar la bien vrai que ne euh, am na liggéey yu bari yoo xam ne def na ko mais biñ ko reyee gis nga ni nit ñi jógee rawatina ñi nga xam te ni même ñi nga xam ne bokkuñu ci euh, moom déjà nekkul sax musulman mais terewul ñi nga xam ne ñu ngi woon doon si xeex bi ñooñ sax ay musulman lañ parce que mu ngi dëkkoon ci dëkk boo xamante ni ñëpp xam nañ ne dañ leen noot muy waa Palestine tey ñu faat ko ci euh, benn xare te nekkoon na koo xam ne ku ko doon défendre la ku ci am euh, Pastef la mais gis nga niñ ko dénoncé def ci ay ay ay ay reportage def ci woo ñëpp ku nekk daal di ci wax toll nañ foo xamante ni l'islam noonu lañ koy fàttee parce que gis nañu ne li ci mujj rek moom mooy fi ñu toll gis nañu actualité bi ni mu ni mu demee ak euh, li ñuy wax ay oustaz buzz ak yu ne dañuy toog di yàq li nga xam te ni moom mooy daanaka même bu dul yàq sax mais luy tarniir image yu la ndax euh, nit ki mu ngi wax fekk mu ngi jaay li nga xam te ne moom mooy kàddu suñu borom te loolu suñu borom sax wax na ko eh, ci moytu leen di jël sama sama sama sama aaye yi di ko vendre a de vil prix maanaam eh, eh, prix yoo xamante ni daanaka du signifier dara te loolu lañu fi gis gis nga ku toog si plateau bi di foyee li nga xam ne ni moom mooy kàddu yi lislaam di foyee li nga xam te ni moom mooy kàddu yi suñu borom teg ko foo xamante ni ci wàllum comédie wala ci wàllum buzz ñu toll ci ci ci ci ci ci ci jamono jooju mu mel ni kon image image baa ngi nii kon dañuy daal di euh, dem déglu ko daal di jërëjëfal bu baax a baax ñu def naa ne dégg nañu li nga xam ni moom mooy kon euh, kàddu yi ak euh, ni nga xam ni noonu la ko euh, faram-fàccee xam nga moom lañ doon expliquer sànq rek avant ñuy ñëw ci loolu la ñëwaat ci li nga xam te ni moom mooy nit ñi ni ñuy def kàddu yi jamono ji di ko yàq waaye tamit di ko ñàkkal fayda kàddu yooyu nga xam ni moom moo <laughs> Cheikh Bara <laughs> voilà retardataire ba ñëwoon moom <laughs> coupé téléphone bi. mën naa ñëw toog comme mu ngi retardé rek. retardataire bi. boo paree ñëw toog. mu ngi noonu comme niñ ko doon waxee sànq mm-hmm. kàddu yi nga xam te ne moom la mu nekk actualité parce que gis nga niñ ci nit ñi fi ñu ci toll ak euh, dénonciation yi ak euh, fi ñu ci nekkoon ndax euh, def naa ne bi mbir yi amee presse bi ku nekk dem nañu laaj ay expert waaye tamit laaj ñi nga ne ñu ngi ci umma bi ak nan lañ ko gisee ñu toll foo xam te ni war nañu waxuma la assainir li nga xam ne moom mooy média bi mais lépp luy rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa diine yeeg ak waaraatekat yi waaraatekat yi surtout ñu gën a xoolaat doxalin bi vrai nag ñu ngi liggéey liggéey boo xam te ni ñun ñëpp ñu ngi ci jëriñu waaye am na ay euh, fu ñu toll foo xam te ni suwaay bu war nañ ko xoolaat bu baax a baax ndax dem na ba mbir yi dafa daal di jéggi euh, mujj gi dafa mujje sax mënuñu ko canaliser dem nañu ba kuy wax ku nekk yaa ngi seet looy dagg dugal ko TikTok presque loolu mooy tendance bi ku siy wax ku nekk di nga wax baat boo xam ne soo paree da nga koy dagg dugal ko TikTok est-ce loolu tey jii mooy fi nga xam ne foofu lañ leen doon xaar jërëjëf euh, soxna ndiir ci taxawaay bi ak macha allah mag ñi nga xam ni. Mhm. yaa ngi valoriser seen ay mbir. Mhm. waaye di ñu ko fàttali ba duñ ko fàtte loolu dafa am solo. Mhm. jëm ji ngay waxtaane tey nag miinuñu ko bu baax. waaye miin nañ ay kàddoom ci ay boromi xam-xam. ñu ñu koy nettali waxam ji siiw jooju rawatina muy ku ne am nga ku lay jooyal. ba mu des diine. loolu nag euh, yàgg nañ koo gis ci réew mi. boo laaloon sama maam léegi. bu ngoonee sa ay mbokk jóg mhm. boo laaloon maamam sa njóogu bu mhm. ngoonee ay maam ay mbokkam jóg mhm. waaye diine képp la ñuy salfaañi ci pénc mi ñëpp ni tekk te pourtant yàgg naa ko wax ñun ñëpp lu ci waay am lu ci nekk ñaari diine ko may may faral di wax ni boo xoolee oustaz bi ci junñu nga ko sëriñu daara bi imam bi noddukat bi xoole li mu am lépp rek diine ko may bari na koo xam ne mënoon ni lii mooy qualification te lu nit di am ci teraanga am na ko muy oto muy kër dépense bu doy ay soxna lépp soo ko laajoon lu la may lii danaan diine ma ko may mhm. parce que ci turu diine lañ ko defalee ñaata nit aji nañu màkk ñaata nit ñaata nit du xaaj du jeex lu tax ñu yóbbu leen parce que dañoo gis ni ñi dañoo sopp diine di liggéey ci diine guddeeg bëccëg kon ñooñu lu ñu am lépp diine leen ko defal mhm. léegi mu des ñoom lu ñu defal diine lan la ñu delloo diine ci ay valeur yoo xam ne moom la ñu incarné ba nit ñëpp jàpp ay nitu diine lañ ndax delloo nañ ko ko euh, foyer gi nag euh, lu tax mooy tendance bi xew wax nga ko dangay dem seeti ay sëriñu daara yoo xam ne fa ñu nekk jànqale rek lañuy def raxuñu ci lenn nga gis dàll bu baax sax mënuñu ko am nga ñëw fekk fii benn waay boo xam ne ñaari xaddiis ak ñaari aay rek la jàng njar ko Euh, mbir mi ba nga xam ni sëñ bi suy waxtaan léegi ñuy fette soog ñu koy jox joxuñu ko parce que dafa mën a waxtaan ci diine hmm. ndax xam ñu amul benn effet bu mën a def mooy li saa doon wax boroom hmm. xam-xam bu waxtaan ba pare ñu naan waaye oustaz sa waxtaan yi damaa ree ba bëgg dee hmm. looy ree est diine la la wax ndax diine moom dafa boole ñaar mooy xupp ak bégle koo gis muy xuppee du diine lay wax koo gis muy muy bégale kese du diine lay wax mais diine dafay boole ñaar yëpp dana la xupp ba nga yaakaar moom lu neex amul mais dana la bégal ba nga yaakaar ni lu naqari amul ko def mbubb di ko mbubboo ba nga Euh, bari na ci ñoom ñoo xam ni bu ñu toogee euh, seen xaabar xaabar ak seen sañse doo gisati sax diine ji ñuy jàngale. Mm-hmm. li ngay gis rek mooy seenub sañse kon nañu delloo waat seen xel xam ni diine ji ñuy mbubboo d'accord diine mat na sëkk mbubbu waaye nag ngal la boo mbubboo diine ba am ci mbubbu bu mbubb ma tilimee na nga ko fóot ba mu set mooy da ngay kaasal diine mhm. na nga koy jooyal mhm. ba nga xam ne du du du manqué dara moo tax euh, ki ngay ki ngay waxtaane moo waxoon kàddu googu mooy ku ne am nga ku lay jooyal ba mu des diine islam mhm. d'accord Fatima nga ñu may ñu rek ñu nuyu retardataire moom Cheikh Bara Ndiaye borom def gis euh, moom moom non seulement day tardé mais ñëw yore téléphone ba naan maa ngay yéeg ci plateau ba <laughs> Cheikh Bara ñu ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay fay bu baax di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di ci minute yu néew yi ñu tardé. néew waaw minute yu néew la. néew non minute yu néew la. di nuyu <laughs> Cheikh Souhaïbou sañ sa biir rafet na. yow jëloo mu tuddati son mu tàdd ak kii boole leen maanaam ñaari ñaari couleur yu lëndëm këriis rek. boole leen ba noppi maanaam xamoo ci xamoo li nga mel ne man man man ñu woon député yooyu seen seen yi xes <laughs> la mooy député yooyu nga xam ne kenn boole wu leen ci liste yi nga xam ne duñ duñ duñ ñooñu lay doon député yi tàggatoo. <laughs> jërëjëf Fatima egg ñu jox Sadio Xassan comme le temps que muy imprégné muy imprégné wu ci débat bi waaw euh, Sadio. Sadio directement nag tontu <laughs> non Sadio directement waaye. déterminant <laughs> rek am na bi mu dee boo ñi nga xam ne dañuy sañse ba duñu xam ne ne nitu di nañ wala maa ngi lay joxe jël xoolal waaye wax bi moo tax moo tax lu am solo la day wax ba mel ni yow lay waxal waa ji doon wax ci jàkka ji day wax ba ci yàgg waa ji jékki ne ko imaam yëf yi demeewut noonu <laughs> <laughs> parce que pour moom moom la ñuy wax. moom la ñuy wax macha allah Fatima gis nga wax noonu. Mhm. Euh, lu am solo la parce que euh, sooy bu jun na junj na léegi wax ne koo ci laal sa maam mu daal dee jóg. Mhm. loolu mooy dafa am loo xam ne bi li ñu bokk gis nga gars yi boo seetee dañ doon faral di wax ne Sénégal bu dee individuel. Mhm. maanaam ñoo ci man maanaam dinañ kii nga xam ni bu dee yow dong yaa dem wutal ji sa bopp. maanaam diine yi tam kii tamit noonu la. parce que boo laalee diine xaar Mm-hmm. naan na ko ñii de xam naa léegi ñii jóg ñii ne ñii de léegi ñii jóg ñii ne léegi ah. bu ko defee kenn du jóg mm-hmm. loolu moom nekk na problème boo xamante ni bii problème mu réew mi la mm-hmm. te dafa am loo xamante ni bii wax dëgg fa yàlla man dama ci ànd loolu waroon nañu teg comité bu mel noonu diine ji teg ko maanaam am ñoo xamante ni bi ñiy dem ci télé yi di représenté bu mu nekk rek koo xam ni xel mu neex la yor rek jekki-jekki ñu ne mu ngi wax ci turu murid yi wala mi ngi wax ci turu kii wala mu ngi wax ci turu lii mais dafa war a fekk ñu nekk ñoo xam ni kër googu ci boppam ñooy wut ñu leen yoral seen communication mu wóor leen ni kii di dem moom ku jàng la te li muy wax voilà day nekk kii quoi comprendre nga mm-hmm, mm-hmm. bu boobaa doon nañ mën a éviter yenn dérive yu bari yoo xamante ni bi dina am ci wàllu kii bi tey diine ji ci boppam sax tamit aussi li Ahmed Khalifa Niass wax na ko fi wax dëgg ne boo am na ñoo xamante ni bi bu doon yenn dëkk yi duñ taxaw di wax wax ci diine mais da ngay gis ñoo xam ni façon bi ñuy waxee diine ji sax Euh, man nekkuma ki mais folklore gañ ciy dugal rek maanaam day mel ni sax di mbirum caaxaan la. Mhm. parce que ñoom ci seen jëm bopp après dañuy incarné caaxaankat goo xamante ni kii de loin da ngay gis ni kii kat xam nga tey euh, kii bi doon wax barki dem ba Ndiaye naan eh, oustaz fësën ñëw tee réew mi. xam nga loolu kenn mus koo gis. Mhm. oustaz fësën ñëw tee réew. Mhm. Ah, loolu mooy la xam nga yu mel noonu. nekk na loo xamante ni bi euh, tamit du lu ñu mën a wax la. fii gis nañ fi tamit am na yoo xamante bi bu ñu demaan ba nga xamante ni bi dañuy toog di seetaan tamit waa waaraate mhm. nga gis nit jël loo xamante ni bi tamit jël ñaari kii Iran def na ko jël ñaari mannequin bu góor ak bu jigéen naan lii mooy lii bu defee nii bu defee nii <laughs> nit ñi jàngale nañ sëy te yeggut fenn fi mhm. yooyu yëpp ay dérive la yoo mhm. xamante ni bi euh, gis nañ ko mu daadee am ci pénc bi te kenn du wax xam nga parce waa ji laxasaayee na loolu ne day jàngale diine rek mhm. mais waru ko permettre mu def lu ko neex mhm. xam nga ci damay jàngale diine ñu ne way day jàngale diine ni mu koy waaye te par contre sax da ngay gis sax yeneen ustaas yoo xam ne ñu ngi koy féliciter te gëmuñu ko mhm. parce que li tax ñu koy féliciter dañ naan bu ma defee nii dañ naan ma da ay ñaan moo tax du ñu ñemee sax wax dëgg gi daal ne lii kat jaaduwut parce que am na loo xam ne yow boo demee ba mujj gi ñu ngay waaraate ñu lay defal déconseillé au moins de. 16 euh, ans wala ça c'est grave ci waaraate. ñu ne léegi kon léegi maanaam diine ji am na ñu ñu exclure ñoo xam ne moom lii moom waruñu koo seetaan. Mhm. te chaque jour loolu ngay wax noonu. ay mhm. nit dañuy taxaw di ko wax. langage bu leer nit ñi di comprendre li ñu bëgg a wax. Mhm. parce que li waa ji doon wax rek ne. Euh, dem gànnaar terewumaa xam ni guddi la ñuy reer am na loo xamante ni bii boo ko waxee nit ñi dinañ comprendre li nga bëgg a wax sans pour autant que mhm. nga heurté kiiwu nit ñi quoi mhm. vraiment diine ji moom wax dëgg fa yàlla li ci wax moom loolu moom lu wér la mhm. euh, jooy na parce que amut ñu ko mën a ñu koy ñu ni ñu ko war a défendre. jërëjëf sa Sa Ndiogou mu mel ni kàddu la yoo xam ne nii actualité la ba léegi dafa mel ni mag ñi bu ñuy wax dafa mel ni dañ koy dañ koy gis. bien avant que parce que lu lu lu kàddu yu Omar euh, Cheikh Omar Foutiyou Tall lu mu waxoon lu lu lu yàgg boobu ay ay ay centaine d'années ñu ñëw tey ji di ko di ko di ko di ko dund mooy euh, fi may ñëw ak euh, Cheikh gis nañu kàddu yooyu nga xam ne fësal na ko diine ji dem nañ ba foo xam ne diine képp ku nekk am nga koo jooyal ba mu des li nga xam ne moom mooy diine ñu toll foo xam te ne diine mu ngi gën di tumuranke te ñi koy tumurankeel mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a taxaw di ko jottali noo gisee kàddu yooyu waaw euh, maa ngi lay kontaanal bu baax ci kàddu yi am solo yi ngay indi par euh, jeudi bu nekk nga xam ne euh, képp ku koy topp rek jeudi bu nekk di nga am ab bind bu bees ci sa dund. Mm-hmm. rawatina ci nit ñi ngi koy jëlee ndax kii nga ko jëlee dafa bari ay exemple yu mu am ci Sénégal. Mm-hmm. muy Cheikh Omar Foutiyou Tall. Mm-hmm. ca année mille huit la jël tànkam dem Makka boo xoolee ci wàllu taxawal islam tamit daanaka. jël jaaseem di xeexal lislaam ba fa ak dundam yam mhm. loolu def euh, boo ñëwee ci wàllu taarif ay téere tamit bind na lu ëpp soixante lu mat soixante dix téere wala bokk euh, euh, deux cent téere laay wax soixante dix ans la dund daal di ci taalif lu mat deux cent téere hmm. def quarante xare yoo xam ne bu ci nekk lislaam a tax mu xare ko kon kooku dafa nekkul nit ku ndaw mhm. wax nañ ne bu masaan teg ndabi añam da daan mat juróomi téeméeri bool xam nga ne kon juróomi téeméeri bool 500 bool. Mhm. ay ponkal wër ko kon da ngay xam ne kooku mi ngi doon dundal ay milliers de milliers de personnes. bokkoon na ci li tubaab bi gënoon a xantewoo nga xam ne dañ daan wut ay espionnage espionnage pour ñu koy espionner. mooy nan lañ def nan Cheikh Omar fan lay jëlee xaalis. parce que ni mu amee woon xaalis te mënuñu woon a expliquer moom fan la trace bi di jaar dañu mujjoon naan da koy soppi lekk lu nekk tuumaal nañ ko ko ngir wërsëgu yàlla wu ko yàlla joxoon. Mhm. ba fan yee am na shérif bu doon dal ci kaw euh, wolof yi naan wolof baaxut ak nangam nangam pël a gën léeg. Mhm. Cheikh Omar Fouti yi dafa joxe exemple bu mag ci lu mel noonu. ba mu mhm. naan naax sax naan su ma jaaraloon ma dikki ci tontu exemple boobu rek jaroon na indi. li ko yàlla may lépp moo nekk xalpulaar bi nga xam ne boo nee pël la sax sa xel ci Cheikh Omar Foutiyou la jëm te musul am soxna soo xam ne pël la mm-hmm. mbooleem soxna yim takk takkewu ko ci pël kon kooku daf lay wan ne xoolul ay deret ak sama deret a gën deret jeeg ne da ko bandum la ñuy dund ak loolu defu ko moom mm-hmm. soxna yim am yëpp boo ko toppee amu ci kenn koo xam ne euh, maanaam ñoom ñaar ñoo bokk làkk bu ñuy làkk loolu amul mm-hmm. kon kooku exemple la bu dee nag moom rek moo amul ku ko jooyal loolu loolu dëgg la mhm. euh, waaye nag suñ jamono jii nag maanaam nit ñi góorgóorlu lañ ci ndax euh, bari na loo xamante ne ku ko bëgg a wax ci diine ji mhm. di nga di nga dugalaat saw làmmiñ bari na sax ñoo xam ne dañoo jël seenub xeex ñoom ne dañuy aar diine ji ba far tey gis naa ci ñu ñuy defee rek a jàpp mhm. mooy fas yéene nag ñoom itam kuñ mere sax ne diine la mere di la te demeewul noonu fii Sénégal euh, gis naa benn bi sëñ Muntaxa mas naa wax ne su ma gisoon yonent bi taxaw yàlla taxaw sëñ tubaa taxaw ci sañ tubaa laay dem ñu ne waaw lu tax mu wax ko kon gis ngeen diina ji kenn jooyalu ko fekk loolu loolu loolu diina jooyu ci ndax euh, man tey Walfadjri moo fi duggoon Cheikh Niass taxaw Moustapha Diop taxaw Sanjoogu taxaw ci Sanjoogu laay dem parce que moom moo tax moo moom ci laa war a dem mm. sëñ taxaa bu dee dem ca yàlla jaar ci sëñ Tuubaa fa la war a jaar la war a jaar mm. naa ci am benn kii bu ma gis mu ci doon wax ci YouTube bi ma woo ko téléphone ma ne ko yow dama lay laaj ku fii benn kaamin mm. hmm? tegal la fii cinquante mille francs boo ñëwee looy jël mu ne ci cinquante mille yi laa jëm ma ne ko pourtant kaamil bee gën cinquante mille <laughs> sans dépend que da ngaa jëm ci lii mu loola da ngaa jël loola teg ko ci kaw lee yow xam nga ne ab kaamil moo gën cinquante mille mhm. teg naa fi kaamil bi teg naa fi cinquante mille demal ci kaamil bi mhm. pourtant yow ci sa choisir sa adduna rek boo xoolee ci cinquante mille yi nga jëm mhm. loolu nag mooy mooy noonu léegi dafa bëri ay interprétation yoo xam ne waaw waaw waaw kullu hisbin bimaa ladayhim farihun waaw yawma nad'u kullu unaasin bi imaamihim mm-hmm. loolu yàlla dafa yàlla dafa bëgg nit ku am kilifa mm-hmm. dama koy wax toujours ma ne jabar ak bu ñuy takk jabar mm-hmm. nit ñi dañoo war a xam ne rek lenn la mooy ay accords yu ñuy signé la aaya yi ñu jàng ak jàkka jañ koy defeek lépp lenn la mooy Sa Ndiogou mii dafa am doom ju jigéen moo ko yilif sa doom ja dem ba gis Sohaybu wane ne mu bëgg na bu ba dëggu ci mm. Sa Ndiogou woo Sohaybu ki mbokkam di leen wan ne fii la sama kilif teef yam fii la kilifteefu son yi bu départ jëm maanaam nekkatuma kilifaam yéenay kilifaam léegi. Mm-hmm. ñu ne ayca ñu signé ko yooyu gura daat dem léegi loolooy mayee jabar jëkkër ak jabar. Mm-hmm. kilifteef mooy diine nit ñi nag léegi dañoo bëgg jëm ca yàlla ba noppi. maanaam mm-hmm. lànk ne duñ am kilifa sëñ Tuubaa sax nee na dalani allahu ala muhammadin wa xaadali muhammadin li samadi ba mu ne bërët di xalaata jëm ca yàlla yàlla da ko ne wàññikul dem toppi yonent bi pourtant pourtant pourtant la doon wëri boo ko xooloon exemple boo boo amoon problème nga ne léegi poste courant bii dafa dafa dafa courant bi moom fi la ëppee. Mhm. baal ma jël sama portable bi ma dem ci poste courant bi roof ko ca booy roof muy tàkk muy naaw ndax du kilifaam warut a jëfandikoo moom. Mhm. boo gis nga courant pour nga jëfandikoo courant bi poste courant bi day wax ak compteur bi compteur bi wax ak prise bi. Mhm. portable bi doo ko wax ak prise bi boo ci teggi rek doo jariñu te pourtant courant bi ngay wut mi ci porte poste bi. mais dangay ngay dem jaaree ca prise ba pour mën ci noonu la àdduna demee du caagi ne yàllaa wala diina jaa ngi nii rek duggal jariñu déedéet nit ki mm-hmm. faaw nga am kilifa. léegi kilifa boobu ngay ngay wax noonu. est-ce que mm-hmm. comme euh, sànq Sadio frolère na ko mooy li nga xam ne moom mooy euh, est-ce que jotul tey ji tamit ñu organiser ko nga xam ne nii kër gu nekk dafa am ñi nga xam ne nii ñoom la ñuy wax ñu habilité waxaat nit ñi. Mm-hmm. ñu xam yow identifier nit ki fan fan la jógee identifier waxam yooyu nga xam te ne parce que nit koo xam te ne identifier wu am responsabilité si wax mais dérive bi fu mu dafa jéggi dayoo. xam nga kilifteef moom Sénégal ñun nañ ko. problème bu ñu ko amee ñi amut kilifa te nekk ci dëkk bi ñoo ko ñoo ko fi indi soxna bu mii lu ma ko mënoon a def su bëgg su ma bëggoon a tëj wala mu bëgg a fayu su mhm. du ko def mhm. ku lay bu tooñ balaa yàgg kilifaam fekk ko fa wax ak moom mhm. Sénégal boo gisee jàmm na fi mooy fayu fi yomb fi tooñ fi yomb fi bu mii tey am na lu ma ko doon def lu mu rëy rëy rëy ne kër sëñ Baara toj bopp ba balaa suba ci yor yor kilifaam ne ko soxna bu mu am toogal nii d'accord mu daal di toog. d'accord man tey bu ma ne woon damay dem jotee jeeg soxna bu am na nit koo xam ne bu naan hey may noppi. Mhm. am na koo xam ne sax bis bu la digaloon nga bañ. maanaam nit ñi moom bala ndax da war a nangu ndigal li noonu mooy esprit Sénégal ñun dañoo nangu ndigal nangu kilifteef. Mhm. Euh, bu ñu kenn interpréter naan ñu maanaam kii leen yilif waru a yilif ndax mhm. képp ku lay dindi ci kilifaat maanaam ci kilifa dong la la bëgg a jëmewaat. waaw te te bis ku la bàyyiloo sa kilifa bi ko bàyyee rek na laa yilif waaw. acca dëgg la c'est vrai cosaan ay ca tëjal merci beaucoup ajaratu kon euh, jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo participé yëpp ci euh, débat bi euh, di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñooy téléspectateurs yi également ajaratu kon kàddu gaango